tabe ba tabe jeex tabe ci daraja mooy li ëpp solo te loolu la yàlla baaxe woon sëriñ Abdou Latif moo tax yàlla baaxe ko barabam bu sell bii bu tedd bii ak bisam bii bis yu bari lool waaye wuute lool ni ko sëñ bay Jaxate waxe ne woote yi wuute na lool te wuute na du fi jub kuy wuy ji nay seetlu kay woote ak la muy woote kon seetlu googu ak seetantal googu moonu bàyyi ci barab bii tey Serigne Assane war a waxtaane mag mu sell moomu kon kenn ku ci nekk war nga taatan bu baax a baax raxas sa ndab ba mu set te fas yéene duy kin nuy waxal mooy kan li ni jànge ci kin nuy waxal mooy lan mooy sax ci ak taalibe waaye fas yéene nag delluwaat ci daara yi tërbiyuwaat ndaw ñi ndax sëriñ Abdou Latif mi ngi fi nekkoon ak ku tedd ki sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nga xam ne Serigne Touba Xaadim Rasul moo ko defal lépp bi mu ganee jamono ëndaale fees dell Serigne Touba Xaadim Rasul ci wetam ci la ganee jamono li mu xam lépp ci moom la ko xame waaye bëriwul lu mu nekk ak waaye juramba Serigne Moor moom soxna jaara soxna xatu Gaawaan mi yar doomam ju sell ji da wax naan Cheikh Abdou Latif moo yor ñaari tànk muy sarixatu Serigne bakke Busa ak tërbiyub Cheikh Ibrahima Fall ku ne xam na ne ci loolu la doon dox ndax nit fekk na ko ci pénc mii ne ko faal mu ne ko jëf ji nun la waaye sant yàlla la nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax sëriñ Asan mu wax nu kan mooy sëriñ Abdou te ten fas yéene koo diglu bu baax a baax jël bindu bu bees boo xam ne danañ ci mën a yóbbandiku di ci jëfandiku ba déwén ak jàmm incha allah ndax li may wax ne nasaraan bi bu fekkee buñ ko laajee 1902 lan moo ko waral mu tàppe ci machine machine baa tax jullit bi suñ borom defal na ko xel moo xay ne bu ko jëfandikoo luñ ko laaj te mu yitteem dana ko jëfandikoo xel maa tax ndax ki jóge ci daara ji jàng alxuraan ne ko jullil ah waaye waxu ko nu ni jullee mu dem jàng téere yi ñuy jullee su ko bàyyee xel rek duutu ko fàtte kon nag na ni bàyyi xel li nu nuy wax ci jataay yu mel nii jataay yu tedd yii bari na ci ñoo xam ne denc nañ ci seen téléphone loo xam ne suñ doon supprimer lépp dañ fay bàyyi loola loola yàlla nay diine kon nag euh, dañuy jox kàddu gi Serigne te ñu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida ginnaaw ñu sant yàlla julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant aseexul xadim suñu yaakaar teeg ëllëg di ñaanal sëriñ muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér balim naanal sëriñ tuba mu def ko te ànd ak noonu lañ koy ñaanal sëñ Abdullahi Mbacke xalifa Mamour Diarra borom Cham suñ borom feq aw fanam may ko kàttan mbalim naal cottu borom Sam mu def ko taan koo njaboot gi yëpp di ko nag Serigne Cheikh Ahmadou xalifa sëñ Abdou Latif suñ borom kàttan ak wér mbalim naal ci liggéeyal sëñ Abdou Latif mu def ko te ànd koog sagoom noonu lañ koy ñaanale nag Serigne Moudou Mbacke nga xam ne mooy borom kër gi di doom ci sëñ Abdou Latif suñ borom. dolli ko kàttan ak wér balim naal ci taalibe yëpp mu def ko nam ko bëgge di nuyu nag ki nga xam ne mooy sababu jataay bi di soxna euh, maam astu Ndiakhate Mbacké mi nga xam ne mooy doomi Serigne Abdou Latif soxna Astou Gawane nga xam ne damay wax ni daa baax rek waaye li wolof di wax rek boo wooyee nit ba ñëw ñaar rek nga koy doyee benn danga koy wax wala nga jox ko lañ fi doon joxe moom defe naa ne ci léegi ku fi teew gis na ko kon luñ fiy waxee rek moo fi des te liñ fiy waxe yépp rek daa baax rek tey jot li message rafet jikko waral nag mboolem li muy li muy yëngu lépp rek mu gëm ne ñëpp dañ cee war a jariñu ba tax na mu sàkku ci ñun jataay bi donte jataay bi sax maanaam ñi fi teew ñëpp kuñ ko ci joxoon nga ma ne ko niñ ko defee di jaajëfal lu baax Serigne Moustapha Ndiaye ci kàddu yi nga xam ne moom la jiitale jataay bu ubbeeku ko muy kàddu yoo xam ne ku ci sukkandiku woon rek doyoon na sëkk sëkk sëkk ndax day kàddu yoo xam ne niroo nag jëmmi ki tax ñu woote muy Serigne Abdou Latif waaye niroo nag maanaam moom mi ko doon wax ndax wolof dafa wax ne wax neex na lool waaye ñi nga wax ba daaneel ñu xool li ngay wax gis ko sa jëmm moo ko dàq loolu nag yàlla dimbule na ko ko yàlla na ko ci yàlla saxal waaye sëñ Abdou Latif defe naa ne buñ bëggoon a waxtaane dundam gépp ci jataay bii nii du ci xaj buñ ko xaajoon juróomi xaaj bëgg a waxtaane benn ba sax du ci xaj waaye kon lii sababu jataay bi rek lañuy def muy génn ci ak dundam ay bind yoo xam ne koo ko teg ci loxoom mën na ci bénéfice ren ba déwén ba bu agsiwaatee fi yëgoon ne déggoon na fi loo xam ne war naa jar mu di ca góorgóorlu kem kàttanam ndax wax moom di ko dégg muy neex am na solo lool waaye wax ba daanu nga jóg dem toog xalaat ne wax ji lim doon bëri bari man lan laa ci doon loolu moo ëpp njariñ te loolu nag boroomum xel dong moo ko mën a xam te moom la si Moussa Ndiaye wax léegi nit xelam lim concentré wu rek moo koy dimbale ci lim bëgg lépp mu di ko xam concentré wum xel nag toog wét xalaat daf cee bokk suñu Mor Kayré nam doon waxee rek murit dafay nangoo si sikkar dëkkal lu baax ci am xelam tey rafetal yéenay jëfam bu dee sikar xolam xalam buñ bëggee waxtaane Sëriñ Abdou dañuy jiital ayab suñ borom boobu nga xam ne moom lay misaal ci yenn jat ci yenn mbir yi demee nii nga xam ne léeg-léeg mbaax day samp fenn yàgg fa lool am yoo xam ne mooy sabab loolu li alxuraan di jàngale wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi isni bi wala si xabusa laa yaxruju ilaa nakida jooju mooy waral léeg-léeg ñuy ñuy miin fenn mbaax nit ki ñuy miin fenn leneen ndax euh, li alxuraan jàng alxabisaatu lil xabisiina wal xabisuuna lil xabisaat wa tayibaat li tayibiin wa tayibuun li tayibaat jooju mooy ci kuréeli suñu borom yi rek jamono bu nekk rek day am loo xam ne moom nga baax baaxoo xam fii te loola du soppeeku suñu borom nag dafa wax ne bu fekkente ni da ngaa yor ja gàncax gu gu goo goo goo bëgg meññeen mu baax dangay dem ci suuf su baax nga ji ko fa. bu jebbee ba màgg rek la nga fa ji rek moom la lay joxaat loolu di wolof loolu la wolof di wax naan butéel bu kubéer gu nekk la butéel ba def rek moom la saañ bay xeeñ moo tax am na am na yoo xam ne moom day jéggi di jàll moo tax nag sëriñ Abdou Latif mii ñuy waxtaane te ci ci ñi ko xam dund ko miin ko boo dee wax ci moom daanaka ki koy dund moom ak taalibe rek lay gis moom fekk taalibe googu xam-xam moo ko jiitu xam-xam bi am na lu ko jiitu mooy ak juddu ab juddu nag bu xasee am xam-xam am ak taalibe ñëw nëbbu leen ñoom ñëpp kon taalibe ga dafa fawxa ak taalibe nag li li li li li ñuy li ñuy faral di wax rek ñun ñëpp moom lañ benn nag da ngay sàkk lu am njariñ wala nga sàkk lu amul njariñ waaye képp kuy sàkku rek taalibe nga la ngay sàkk ab taalibe nga ca moom ak lu mën a doon nag bu baaxee ab taalibe nga ca bu banee ab taalibe nga ca yitte jang ca def nag am gi ndax bu fekkonte ne lépp lu mu sóobu ci ab safaan du ca jëriñ dara ñi yàlla defal tawféex yi ñi yàlla yàlla nattu safaan bañ nekk ñu am ca ndam kon duñ ca duñ ca duñ ca duñ ca jiitu dara waaye nag li am solo mooy fexe ba aju ci Serigne Touba te loolu la Serigne Abdou Latif déggoon ba tax dundam gépp mu yemale ko ci loolu fexe aju ci Serigne Touba. Serigne Touba nag moom mi mi nga xam ne moo moo moo moo moo yilif ñëpp yor yoon wi moom baatum aju. akuk taalibe nit mas na ko koo laaj ne ko lan mooy lan mooy différence bi am suñu tubaa ngi mbindam yëpp rajaaw rek la cay la cay def yim digge yëpp baatu bu rajaaw la ci jëfandikoo ko aju ci man nangam ko aju ci man nangam jàngkat xas day xam nañ loolu waaye baatu taalibe moom man xaw gisuma ko ci mbindum suñu tubaa ak xataa wala doon doonte am na ci waaye dafa am ko laajoon ne ko lan moo tax sa mbind lépp baatu aju rek moo ci nekk waaye taalibe du ci am mu daan ne dama laa bëgg a leeral baatub taalibe ak aju lan mooy seen différence nekk ci ay saxaar ak nekk fi ak saxaar dafa bokkul daane képp ku dem ba ci ab gaar nga toog fa ku la fa fekk xam na ne dëgg dëgg yaa ngi ci saxaar yi waaye gu départ fan lay bàyyi loolu mooy taalibe waaye aju nag mooy nga dagg bii toog ci saxaar fu mu ñoom yóbbaale la loolu mooy aju moo tax nag faw da ngay da ngay aju Sëriñ Tuubaa ba pare soog a bëgg ci yi muy digee ak bu boobaa nag yi muy digle daf lay yomb Sëriñ Abdou Latif mi ñuy waxtaane nag képp koo xam ne aju nga ci moom daanaka booy xool bu fekkente ne lenn mooy mooy nekk li yéeme ci yow mooy ñu ne laa ah Sëriñ Abdou Latif mii kat nii la meloon ñu xool la yow ak taalibe amoo ci lu toll ne tarafatal xay di waaye itam ak ak ak positif amoo ca dara yooyu noonu mooy nekk yi nga xam ne moom la ñuy xam ci yow mu yéeme waaye waaye xam ci yow bëgg lu baax amuk taalibe ci dox ci lu baax loolu moom du yéeme laa xarwa loolu moom du bokk ci yi nga xam ne day nit ki da koy gis di ko di ko di ko di ko yéem moom la si Moustapha Ndiaye léegi ki ki ki jaxasoo keneen ba ba ba mu nemmeeku ca moom benn façon jikko bi ci mën a xaar akum taale bi mu laaj ko ana fa nga yaroo mu ne ko kër Sëñ Latif kooka loola itam yéemu ko ba tax mu ne ko fa nga nekk danga koo xamut loolu mooy loolu mooy mooy li nga xam ne mooy li am solo waaye ngir ñu ngir ñu ngir ñu wax leen Sëñ Latif nag daanaka ku ne xam na ni Sëñ Latif ci ay waajuram borom saab moo ko jur ci lu leer borom saam moomu nag moo suñu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñoo bokk ñaari waajur yëpp mooy Serigne Mor moom soxna jaara lu walaabul ci Serigne Touba ci bokk rek walaabul na ci moom ñoo bokk ñaari waajur yëpp yàlla dogal it Serigne yàlla dogal soxna Faati Mor mi nga xam ne moo moo moo meññi Serigne Abdou Latif tànnub la ndax Serigne Touba moo sàkk woon ci soxna Faati Madou Maam mi nga xam ne moo jur Cheikh Mamadou Basir ne ko tànnal ma ci sa néegum ndey jox koy qualité sangam ak sangam ak sangam ba mu fa demee ñu parasanté ko ay nit yu bëri waaye sëriñ bi taktal yam ne joxoon bokkut ak yooyu biñu demee ba ak soxna Fatou Mor Touré mii nag jël ko indil ko sëriñ bi njaareem biñ ko indilee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul njaareem sëriñ Tuubaa Khadim Rasoul ci boppam moo moo moo yewu ci waxtu fajar daa di ne ah boromam xamal na ko ne soxna Fatou mii kat kër borom saam la jëm ñu jëlewaat ko njaareem indil ko borom Sam Mbàkke mu am ci sëriñ Abdou Latif mii sëriñ Abdou Latif mi nag gane jamono 1919 di 1919 20 21 sëriñ Moor moom soxna jaara bàyyi koo fi mu nekk ci at yu bëriwul lool ñaar jàpp ña benn at jàpp ñaar sëriñ Touba laajaat ko moom ak soxna Faati Moor Touré dajale leen njaareem ku ne xam na ni Seex Ahmadu Bamba dafa Xaadimu Rasuul dafa waxoon ginnaaw borom saam daa dajale woon ñi borom saam yoroon ñëpp indi leen njaareem daa di wax ne ndigalul boromam laf ciy dég déglu ku képp koo xam ne boromam wax na ko ni na ko fa joxe dana ko fa joxe yàlla dogalit soo Faati Mor Touré mi sëriñ Touba jox ko sëriñ euh, Mbàkke sëriñ sëriñ Afiya rakki maam sëriñ Afiya moom moo jur sëriñ Ibrahima mi moom mi jur sëriñ Modou mi ak sëriñ Modou Ablaye ak euh, Euh, soxna abi ak seeni mbokk yu jigéen sëñ soxna sëriñ sëriñ Afiya moomu nag bi mu yoree soxna Faati Mor ba sëriñ Abdou Latif nekkoon fa doon tànk nekk njaareem wax nañ ne sëriñ Abdou Latif dafa nekkoon koo xam ne dafa teeloon a mel ne kuy feeñal ay yëf ci ay ci ay ci ay wax bi ko soxna Faati Mor Touré jàmbatee si ku tedd ku tedd gi ne ko indil ma ko bi mu ko indilee mu ñaanal ko ci mu ñaan daal di tibli ci gémmiñ gi yàlla dogal waxatul mu yelloo war ko këram ba mu demee ba toolu ci dara jàng ku tedd ki ne ko indi ko ñu yóbbu ko nag mu jëm ci mbaalum jàng soxna Faati Mor daan ne ko moom de yàlla dafa dogal waxut nag loolu am naa ci jaaxle ku tedd ki daan ne ko li ko noppale woon moo koy wax loo waat daal di koy jël indiwaat ñaan tiwli ci gémmiñ gi daal di koy yóbbu ngir mu waaj a jàng alxuraan mu tàmmulee waxaat comme na mu daan def ku ne xam na ne sëriñ Abdou Latif waxam taxu ko woon a leer torop ñaan googu sëriñ tubaa ñaan nag tif la ci gémmiñ gi wax nañ ne ci laa waxee woon ne ku mu ree nga texe te ku ne si xam ne sëriñ Latif ku bëri woon jàmm la ci ay reetaan ak yooyu yàlla dogalit moom ci boppam ci ci biir jëm daara googu sëriñ tubaa xaadim rasul waxoon ñam farajeloon ñëpp ne leen na ngeen seeree ne Abdou Latif mii kat sama doom la daal di jël am mbubum boppam daal di koy jël jox ko sëriñ Abdou Latif sëriñ Abdou Latif jël ko nag xam nga ñi ñi xam darajey sëriñ Touba ak ni mu toll si yëpp sol mbubb mi génn waaye wax nañ ne afa moo àgg euh, kër Serigne Afia nit ñi dagg nañ mbubb mi ba daanaka tuutee ca des waaye ku ne xam na nit ci jamono yu ba jamono yi defar nit di di ñuy defar nit dëgg dañ daan wax naan nit day diw daf koo gërëm ba summi mbubbam solal ko. loolu nag max naa la waaye du mbubb mi ñuy gis ni mooy dafa dafa koo gërëm ba ba ja ba bëgg mu doon comme moom mu jël mbubbam solal ko. loolu baatin bi mooy feeñ waaye saaxiir siñ gis rek du caaginte ne morso boobu muy yére bi mooy existé waaye baatin bi mooy feeñ ci la ko jëlee nag yóbbu ko mu jàngi ku ne xam ne ne njaareem jàngkaay la woon ngir bañ a guddal sëñ Abdou Latif jaar na ci waroom xam yi xam yépp daanaka ci jooje jamono bàyyi siñ Gadiaga siñ euh, man siñ Modou Lamine Touré siñ Modou Lamine Diop Dagana ak siñ Abibou mii imam ak ñu bëree bëri ci ba waroomi xam-xam jaar na fa ba ba matal fa nag tasanteeg nag Cheikh ma Bamba Khadim Rasoul wàccub liggéey mu tàbbe ci loxoy Cheikh Mamadou Basir mu yóbbu ko mbul di ko fa tarbiya mu nekk fa Cheikh Mamadou Basir joxoon ko juróom-ñeenti Basir yoo xam ne moo ñoom moom lañ ko tuddee mën nañ cee miin Serigne Basiru Bildin muy Serigne ba seex Mamadou Basir moom Serigne Baara ak Serigne Moustapha Basir mi nga xam ne mooy taawu Serigne Cheikh Mamadou Basir ñoom ñëpp seen dëkk moo leen yor ci loxo boobu jàngal leen ci ak tarbiyaam nga xam ne Serigne. Euh, abo mii nga xam ne moo nekkoon dakaar di doomi Serigne Baara nga xam njabootu Serigne Baara yépp Serigne Bassirou da leen dajaloon yóbbu leen bul jox leen Serigne Abdou Latif mu leen di jàngal yàlla dogal Serigne abo mii nag moo nettali Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mii di koy di yéem Serigne Abdou Latif ci di ko wax ne moom day Serigne Abdou Latif daf koo nax ba jàngal ko ndax moom jamono ya muy tàbbi ci loxoom kat ku naqari woon deret la te ku ne xamoon xamoon na Serigne Serigne Serigne Abo ak ay doxalinam ci yu yoo xam ne daf ko daan def mu nekk fa ba soxna soxna Rabi Diop mii nga xam ne euh, moom moo moom la njëkk a yor fa la ko fekk ca mbul ca tërbiyewu ga ngir loolu liñ ciy dégg lu tuuti rek mooy ki nga xam ne dañ koy tërbiye maanaam teg ko fi barab moom léegi la xew rek nit di dem ba yëg ne kat man maay sama taawu baay wala kat damaa xalaat ne damaa war a defi dara daal ne fa ñukku tërbiye ka dem loolu nag la ci Serigne waxoon rek daggug tërbiye moom mi ngi mel ni nga sóob Euh, gerte ci suuf ba mu tàmbulee sax nga sulli ko dangay ngay ñàkk gerte ñàkk ngooñ loolu moom feeñ na ndax da gis nit koo xam ne xeex feeñ na ci rek léeg ngi toog ne la man de Serigne Saliou moo ma yar nga xool ko ba sentatan ko xam ne yar ba Serigne Saliou yu wax bokkut ak bii kon moom dafa taxawu dafaa jaan nag jàll fa la nekk nag di wéy ci ndigalul Serigne Bassirou te ku ne xam ne ne Serigne Bassirou magam la ñu bokk néegum nday mu di ko mu di ko tërbiyoo ba ni ko jëlee nag yeeyu ko gërëm ko mu jóge fa daal di ñëw lappe gi ci néeg kër waay way juróom wu jigéen sanc fa ba fay sanc net nañ ma ne ñaa ñeent ñetti jën yiir la jëloon daal di koy galen galen benn fii galen benn fii galen benn fii daal di wax ne daal def loola jàkk wax bokkam yooyu ni leen dama bëgg ngeen ñaanal ma bu ma delloo ci samay bokk du ma rus waaye foofu liñ ciy digg lu ndaw ndaw rek ngi ak réalisation yi si ñëpp latif yëpp da ngay dégg ne li wolof di wax naan ku ndigal taxa naaje boo jógee dabe laa taxaloo say an bi xëyri isni fal isnu sartun fi xabali sa ani am na mbir yoo xam ne barke lay laaj waaye am na mbir yoo xam ne bu fekkente ne lépp ci yow la aju rek responsabilité ba yow lay dégg yow lay tekkuwaat da nga gis nit koo xam ne rawatina fii jamono toll da gis da gis gone di wax ne moom bay dem bay tuumaal boppam ñàkk wërsëg waaye laa tamit muy tuumaal boppam ñàkk a dox wala yaasim lim bëgg a xaj-xajal ci diggante at yi moo moo ci bu fekkente ne da juddu ñu yóbbu daara nga am fa juróom-ñaari at wala dara day fekk nga am fukki at ak juróom presque jëm kaw bu fekkee jàng nga xam-xam boo ca defee juróom-ñaari at day fekk say at day bëri ñaar fukk yeeg jàpp juróom day daal di mat boo demee ba am fanweeri at nag yor soxna dugg say responsabilité da ngay gëm ne da ngaa tardé fekk yow diggante bi li lay xam ne tardé woo da nga koy yóbbu ca démb am na ñoo xam mag ñoo xam ne bi ñuy toll foofu ñoom ci kilifteef la leen fekk te seeni réalisation yëpp teewul dara dara dara fanqu fanquwu ci moo kii wut moo kii liggéey doo nga yem nag am na ñoo xam ne mën nañoo am fanweer at boo leen laajoon liñ ma a liggéeyee daañ la wax fukki liggéey juróom yoo xam ne yëpp jaar nañ ci bu ci nekk dañuy wax ne jubuwu leen wala dafa doxut fekk du ñàkk a jubu du ñàkk a dox yàkkamti la yàkkamti moom amul ci benn jamono boo xam ne nit mën na ko am ca ndam ndax suñu borom nee na du nangu ñaanu ku yàkkamti bokkoon na ci mm, euh, ci ci baati si ñëpp latif di jëfandikoo xatta yaatiyakal yaqin di wax ne maanaam nit kuy wut yàlla du caaginte ne dangay dangay da da ngay da ngay wéyle say njort rek danga war a dem ba wóor la ne li ngay wut am nga ko wala boo ko amul tege nga ci mbedd moo xam ne boo ko wàccu danga ko am nga soog a mën a gëm ni yàlla mën naa dogal mbir mi nga am ko waaye nag léegi loolu mel na lu xaw a xew yi tuuti moo taxit nag nit dana dem ba am ñeent fukki at ak juróom bëgg a wëlbati ko def boppam am murit fekk la ko la ko raw bëri na fokk lu man baadara waxta si xare ilal hu dastaraha waxtal ki bëri li nga xam ne boo nekkee mag moom nga bëgg a doon bi nga nekkee ndaw lay doon te am na diggante boo xam ne nag dañ ciy fàq ab yar di ko teg nit ne ko nii ngay mel bu jënd nangu tamit saabu bu màggee bu ko bëggee mel daf ko yóbbu ndax waxoon nañ ko nii lay demee waaye ki ki ki ki ki juddu nekk kër baayam suñ Moustapha mi ngi koy junj léegi léegi rek la xew am mu juddu ba am ñeen fukkaat boo ko laajee daf naan la mësuma dem daara boo ne ku la yar sëñu laa wax kenn na moom ndax moom ci kër baayam rek lay nekk toog noonu mata dem liggéey liggéey ñibbi si toog jàpp boppam mooy waral nag nit umpule mbirum suñu borom umpule ko àgg ci bu gisee nit day ngay gis rek ne moom nit la man nit laa yaa ngi dégg nu mën a bindoo rek moom mënumaa gën waaye nit ñi gënantewuñ wuñ liñ li liñ def ñoo gënante suñ tubaab dafa daan wax naan bu ma sikk sikkal lawbe bi ndax ku nekk tax ba nga def ci man duyal naa la ko ba mu fees dell yii day gàtt yi tuuti yi ndaw lool léegi nag diggante diggante bu ceeb ak saakub suuf mënuñoo bokk waaye yëpp ay saaku lañ bu fekkente ne saakub ceeb nag dañ koo teg teg saakub suuf bu saakub suuf gëmee ne gën a diis mooy tax ma ma ma yem ak moom bu ñuy tànn dañ ko fi bàyyi kon nit ki lim mbir mu mën a doon la ne ca biir moom ngay bàyyi xel waaye li ci kaw moom amul solo Sëñ Latif mii nag nekkoon ku mel noonu ba bim diiraa muy dund lappe def fa la mu fa def ba ñibbi siwaat saam gii sanc fi barab bi nga xam ne barab bu ko gën a nekk miracle mënees koo xam suñu Moustapha mi ngi koy wax léegi barab bi bi suñ tubaa sancee tubaa te génnoon génnam boobu nga xam ne toog nañ ay at di ko ay ay ay ay fan di ko wër suñ Mor Jaara doon ko wërlu ba benn pël niital leen ni leen gis naa ko barab suñ tubaa mi ngi feeñe woon ci jumaa yi saam ji fii mu nekk bi mu ñëwee suñ Mor Jaara fekk ko fi mu ne ko mu ne ko mu ne ko suñ Mor fii barab la daal di fay samp li ñuy wax ab ab ab ab jana bant bu kii bu ndaw ba mu ko fa sampee daal di jox ndigal sëñ fàllu daan na ko fetañ ko si déedéet sëñ mor sëñ mor sëñ mor moom soxna jaara moo jox sëñ mor soxna ndigal na ko fetañ ko moo daal di dal sëñ fàllu daan na ko boo dalee ma dal ñoom ñaar ñoo sàkket loolu ñu def fi ab diir nag sëñ moor jaaro daal di nelaw bi mu nelawee sëñ moor bu sa xuréeja mi bokkoo suñu baara xuréeja ndey ak bàyyi ñëw sanc fii sëñ basiiru saam fii la juddoo biñ demee ab diir moom mu teel a nelaw itam saam gii suñu baal xuréej nekk fi saam nekkoon dëkk boo xam ne day tàkk chaque at day tàkk suñu baal xuréej jël néegu borom saam ba yóbbu ko saam suñu baal xuréej jëgale fii nekk diir boo xam ne ay tool la nekkoon noonu xaw a gent ki ko moom moom mi ngi dëkkoon gëli boo demee ba misra am na dëkk bu ca féete ne la koy wax gëli fii demoon diggante boo xam ne kenn daw fi bay ñu ko daan wooyee ak mbay dee mbay dee nag waral ci mag ñi am na ci yoo am na suuf yoo xam ne dañ koy yàq am suuf yoo xam ne jinnee fay dëkk wala dara bi sëñ Abdou Latif demee ba yittewoo fii am na tool yu mu amoon euh, ci benn dëkk tur wi laay fàtte ay toolam su soosa la jox sëñ boobu sëñ boobu jox ko fii bustaan bustaan gii la waaw sëñ boobu la jox tool yi ne woon bustaan sëñ boobu jox ko fii bi bi mu ko naalee nag ñu daan ne ko ah euh, ñu bëri ci doom suñu tubaay ne ko foofu de daanañ fi wax ne ku fi ku ku fi ji dara doo ko góob mbay dee lañ ko tuddee bu fekkee da nga fee bay dugub boo tollee ci waxtu war a góob ak yooyu da ngay bu fekkee gerte boo deqee da ngay faatu simple di ku ko commencé waat daf laa rey daan ne la xaj na boroom moo xaj na boroom ak seegutoon daa di fi sañc bay fi mboq moo xam ne ca yéeme ga ñëpp ca jooj jamono xamoon nañ ko yaroon fii nag ak yëpp mboq ma wax nañ ni képp ku suñ tubaa jur am nga cab saako na yooyu mu fa dinaa mu fi nekk képp ku suñ tubaa jur sak guddi mu jox la ca meew moom ñoom siyam laa tak ñëpp am na ci ndonga simple yoo xam ne son bi may na leen teene ci xam gum leen xam ngir jaabante diggante kër sëriñ son bi ak fii yàlla dogal bi bi fi Sëriñ Abdou Latif sancee nag ba mille cent 1989 fii daal di tàkkaat bi mu tàkkaatee Sëriñ Abdou Latif nag naal ko ngir tabax ko ba mu koy tabax ba muy gas bâtiment bii fii ci kër kër gu mag gi toj tiwil yi borom saam dëkke woon boobu la ko gis nga xam ne moom fi borom saam dëkke woon fi la dëkk kon barab bi daa doon barab boo moom lañ ko denc moo ko fi moo ko moo moo moo ba ba léegi nii gis nga ko mu nekkul dëkk te Serigne Saliou waxoon na ne Sam moo nekk ci digg Touba Serigne Saliou waxoon na loolu Sam moo nekk ci digg Touba. loolu nag liñ ci liñ ci liñ ciy déggee rek mooy ba tey damay delluwaat ci lii mbiri suñu borom amut lu tontu lépp dafa jan lépp dafa jan léegi nag bu fekkee ni nit nga ko xam nit ku tonn nga lii suñ boroom mi joxe doo ci am parce que yow lépp lu lu lu dëpp wut ak sam xer rek danga naan jeex na te bëgg am nga te amin wa rafet da ngay jël ya mbirum suñu borom daal di koy teg damay mas a wax ak benn waay mu ñuy waxtaan ci julli ko tedd ki ci géej gi ma ne ko am na foo koy xoole day yéeme mais am na foo koy xoole du yéeme mu ne ma foo ko mën a xoole day yéeme ma ne ko boo xalaatee ne maanaam boo jëlee jimmi yàlla ji jël tubaab bi ni ñu diisee ak ni ñu bëree jël gaal gi ni mu gënee diis suñu tubaab mu tege ci ko géej gi nuur te ak nit defar ko yàlla tiil ne ñu ñëpp boo xalaatee foofu ak jimmi suñu tubaab yi xam ne motul 50 kilos loolu du yéeme waaye nag boo ko xalaatee ci pas-pas bi suñ tubaa am ba gëm ne yàlla sàkk ko sàkk ndox mi sàkk tubaa yi war na fee mën a wàcc foofu lay yéemee loolu mooy liñ ci war a dégg waaye waroo cee dégg rek ne julli ci ndox mi ndox mi aw aw dénd la rek woo xam ne yàllaa ko moom moom ñu fi nekk ay jën a nga fa te jën nag nit a ko ëpp nit ko ëpp kàttan nit la yàlla gën a respecté ci jën bu fa ay jën mënee dund kay nit war faa mën a wàcc jëfandikoo boromam ndax jën ya fa nekk loolu la ñuy def kon li ma bëgg a wax foofu mooy sëñ Abdou Latif nag loolu la xamoon ba wut Serigne Touba ak dundam mësu cee doyal moo tax Serigne Moustapha mi ngi koy wax léegi bi mu nee ba gisatut Serigne Bassirou jël léppam nag jébbal ko Cheikh Moustapha moom Serigne Bassirou te ko ne xam na ne baayam la jàngal na ko jël mbiram jébbal kon dégg bu jàngalewaat na ne maanaam comme bu fi comme léegi dangay ngay dégg léegi ñëpp dañuy wax comme tey bu tey jii bu ak ak ak garab nekkoon fële ñu ne Serigne Touba dafa wéeru woon xobbat garab ga. daal di koy suulaaleeg koo xam ne daa faatu ñu naa ah loolu de am nañ ci yaakaar ndax suñ tubaa fa réwéer woon fi suñ tubaa dëgg tànk fi ne foo dem def nañ fa jàkk suñ tubaa masara yi yépp ñu ngi koy raay waaye ak xobat wala ab suuf wala ak ëkk nan la gën a mëneen màgg nit loolu mënul nekk kon loolu dañ ci dégg ba tey ne yàlla suñ borom subhanahu wa taala sëñ basiru ab abdulatif mi manoon na bi sëriñ basiru wàccib liggéey mu yëg ne nag maanaam lam doon root am na ko toog na waaye kon li mu bëgg a du ko jàllale mukk ku ne xamoon na ko ci takk ndigg sëriñ Abdul Xaadir daan koo fekk fii ci lappe bu ko masaan fekk day takk ndiggam ku mas a jamonoonteel wax nga ko loolu muy baat bi ko sëriñ Abdul Hakim wax sëriñ Abdul Xaadir mas na ko wax ne ku wa ku war ku war a wane yoon du réer a laata tekkil ndigg li gu jublu ko wax ni maanaam ëpp na takk ndigg waaye moom sëriñ Abdul jublu doo jàngale loolu li mu jubloo jàngale mooy le Cheikh Ibrahima Fall waxoon yoonu murit ñett rek moo ci mën a jëriñe moo ci mën a jëriñe jaayante bañ a xàcc digge bañ a war nangu njaamtee gor su mat sëkk lan mooy jaayante bañ a xàcc mooy nit ki da nga naan ko jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira mu tegal la constitution su boo xam nee ne moom nii lay dundee comme suñ tubaab li mu ñu wax ni ñu nii ngay def ngir jariñ ci man nga ne da ko def loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi mooy dig da ko koo dig ne ko loo loo ma digal dinaa ko def loo ma tere dinaa ko bàyyi bu ko bu bu ca génne li ñuy wax nangu njaamtee gor su mat sëkk nag mooy di nërëm nërëmi di banki tànk fu ñuy wut lu baax nga ne kenn du ma ci ëppale te buñ doon rey ay jaam la fi teggi loolu mooy nangu njaam te góor su sëkk loolu mooy doxalinu murit seen objectif noonu noonu noonu rek la ma doon waaye dañuy jàpp ne ci ci ci mag yi kër borom saami la bokk waaye laa tamit ci mag ña la si objectif li kër borom saami rëy kenn la ci mag muy Sëñ Abdul Xafoor mam Maam Mor dafa am ko ma ku ku ma doon waxtaanal mu may laaj Sëñ Abdul Latif ñaar ñaata at la toog xalifa ma ne ko Sëñ xalifa ndax jamono bi mu fiy nekk ñi ko mag ëpp nañ juróom jàpp juróom benn ñëpp a ngi fi woon toogul mu moom maanaam loolu nu mu mën a nekk ak moom jàppoon na ne gàtt gàtt seen toog na ci xalifa Maam Jaara ma ne ko demul noonu waaye nag dafa amoon secret bu mu doon dund mooy dafa fexe woon ba fi Sëriñ diir ne nañeen fa jaar seen bilatif dem jaar fa jaarale fa ak njabootam loolu mooy jur nag boo xooloon ci ñi seen bilatif jur ñëpp ñu ci bëri bay waxtaan ak ñoom mën nga leen a wax ba daaneel leen ci seen bilatif te ñoom seen bilatif moo leen jur mooy li nga xam ne nag seen bilatif nim nim bindoo woon li ah li bor li arab yi wax ne aljazaau min jinsil amal nit ki li nga bë li nga bëgg sa gannaaw da koy ji rek daal di bàyyi noonu boo ko defee rek suñu borom fay la ko mu nekkoon nit koo xam ne itam ku rafetoon jikko la li ñuy wax rafet jikko rafet jikko nag bu ñu waxee jikko baatu wolof bi ni ñu ni wolof waxee jikko ji nag buñ ko waxee ñi am ñi xam nawet ñëpp xam nañ ko nit ki moom mënoo fexe fexe ba ci gerte mu doon kaani wala nga di kaani mu doon gerte li nga ji rek moom la nit ñi delloo moo tax suñ tubaab doon wax naan ni nga bëgg nit ñi àndi kook yow rek da koy ànd ñoom Cheikh Ibrahim Niass fëlbatiku bu la ku mu gis rek jàpp na ne kii day euh, suñ tubaab def na ko amee ci moom ba bi muy sànc barab bii net nañ ma ne waxtu wam wam wam néeg ba mu njëkk daaj bañ ko daajee ba pare mu toogu laax ba nit ñi raxasu taalib yi ko doon liggéey raxasu ba pare raxasu ma da koo jëlaat sotti ko ci biir néeg bi ëllëg ko mu tuur ko mais da koo sottiwaat ci biir bi daan ne raxasitum gaa ñuy wut yàlla la kon ñun ñi nga xam ne ay taalib la ñi ci ëpp maanaam mën nañoo gis nit di xam ne baax na waaye barkeelu nag du leen ci fekk moom te albarakatu lil mutabarikin barkeel moom mi ngi topp ñii barkeelu loolu moom lu mu daan dund la lu mu xamoon la daan ko dund xamoon ne yàlla léppam ci mbindeef yi loo ko defal mu di ko dund waaye nekkoon nag ku am xalaaqa ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal borom saam ak ñi mu bokkal Cheikh Ahmadou bàmba Xaadim Rasul ñii mu jàppee leen ñëpp maasé le woon leen jàppee leen ay sëriñ ngir mag giñ ko mag waaye ñi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba mu jàppoo leen ay Serigne ba ci kum ci bokkal ci ñi ci fi nekkal Serigne Touba ku ne xam ne si si si Ahmadou Mbacke mi mi ngi ko joxoon Serigne Abdou Lahad Serigne Fallou mi ngi ko joxoon Serigne Saliou ñoom ñëpp séeréel ko taalibe gu dappetoo koo xam ne boo ñëwee wax leen ne fa nga jógee ñoom dañ lay conseil ca fa nga nekk nga xam ne loo mën a wut feneen am na fa nga toog fa loolu nag bu ko yàlla defee defal ko maanaam aw nit ñooñu day jaadu bu ñuy jël bind liñ naan kuñ sa baay kuñ ne sa baay jàmbaar la boo doonul jàmbaar sax si bët war naa xonko léegi ku la gis njortu ci yow jàmbaar waaye képp ku ñuy tudd di tudd Sëñ Abdou bu ñu la xoolee war nañoo xam ne Sëñ Abdou Latif mii kat ah jeexintal na ci yow muy ci bëgg wala ci pas-pas wala ci lu ngeen lu ngeen lu ngeen lu ngeen bokkule. kon boo moo waral nag dund képp li muy bëri bëri bëri am na ñoo xam ne boo leen woon Sëñ Abdou Latif ak amoon taalibe la ñuy wax daal tey yem. mooy li ma wax léegi taalibe bu làqeeb judd làqum njàng taalibe ko jéggi na dayoo ni ko ko mbokkam waxee rek ñëw fekk ko ne ko faal mu ne ko jëf ji ñu na waaye sant bi suñ borooma ñii wut lu baax ñëpp ñoo bokk la méthode biñ koy wutee ndax ak bëgg day am wut am so am soccaa nit ñi xam loolu ñëpp ñoo ko bokkule waaye nag li nga xam ne lu lu lu jàdd la maanaam li nga xam ne bokkut ak li nga xam képp ku cay dundit yow mi cay dund yow yaay njëkk a rafetati njortu ci sa bopp ci ci ñeneen ñi mu mel ne kon ngir ngir ngir wax Sëñ Abdou Latif ci ci ci ci ci ak dundam li mu réalisé ak gàtt gi dund gi gàtt xamoo lu ko may mooy xam lim bëgg soog a jóg Cheikh Amadou Moustapha dafa waxoon ne nit ki mukallaf lu mu gàtt gàtt bëgg-bëgg war naa balaa jóg war naa xam li ko tax a jóg soog a jóg mukallaf boo ne ko kobos ne ko foo jëm war na laa wax fi mu jëm wax la fa lam fay wuti waaye nag léegi ñun suñ digganteeg yàlla nii dañ ciy gàttañ lu dañuy dem ba tollu benn jamono boo xam ne dañ naan am nañ ko daal di toog te yàlla nag diirub dund danga ko war di wut may waral nag boo duggee ci bàmmeel nag sa gannaaw suñu borom moo la koy téel koo xam ne sa ndaw danga koo joxoon suñu borom subhaanahu wa taala boo demee ba soxla soxla wuutaay suñu borom moo lay moo lay moo lay ko tayal loolu nag moo jur mboo mbiru ginnaaw suñu objectif lépp barkeel taalibe yi yim yar ak ñi nga xam ne yarul leen waaye ku kum yar moo leen yar koo ci gis rek simblatif fees na ci dënnam dell ba gisatul feneen te loolu nag li ko may mooy daf ko sàkk ci boroomam waaye wute ko ci mbindeef moo xam ne suñ borom def na ko ci ba mu ko amee suñ borom teel ko ko te li li wolof yi wax rek ngërëm nag moom akum ñaas-ñaas ci kanam ñooyam ki ki ki ki bëgg nit ba ñaas ko wala nga bañ ko ba ñaas ko ñaas-ñaas boobu mënta tax itam nga nga nga een ko ba ne ñaas ñaas bi dama koy dindi mënatoo koo dindi parce que gërëm nga ko ba noppi te boo ko gërëmee te teg ko ci dëgg suñu borom walide ko loolu nag mooy jur nii yëf yi demee ni lay demee jusqu'à la di du li fekk wut lu baax mi nga am nit ku ko am di ko am li fekk dem nañ ba kenn wututu ko it suñu borom daal di téye yëfam xool ñoo koy wut mu di leen ko jox kon nag dañuy sant yàlla bu baax julli ci sangu-sangi Seydina Muhammad ñaanal Serigne Cheikh mi nga xam ne moo ko fi suñu borom may ko fan wu gudd ak wér ñaanal soxna maa sugaawaan mi nga xam ne moo moo moo moo amal jataay bii lépp rek ngi jàllale message boo xam ne ku ku ñëwoon tey ci màggal gi boo ñibbee mën a xam ne kat jëlee naa fa loo xam ne kat bu ma ko làmbaayoo ba déwén dana ma mën a amal njariñ waaye nag ñun ñu ko doon wax sax xam nañ ne maanaam euh, tuuti nañ ci waaye nag lépp rek euh, fexe ba jàllale quelques message yoo xam ne xaj na ku déglu ñu bëggoon a wax da nga jàpp ay bind yoo xam ne dana la mën a yóbbaale sa dund lépp nag loo xam ne jub na ci mooy liñ bëggoon a wax waaye lu ci dëng ci ñun la gàtt xam-xam ak ñàkk fasaxa rek la in uridu lil islaha mastatatu ma tawfiq illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu